aleeru ponk ba léegi jëm ci lii di actualité ñu wax nag toll ci fukk ak juróom yi kanting ñoom ñoo làkk fële ca euh, marché Dior mu doon nag ab tiis bu dal ci ay ndaw doon ay ñi yëngatu ci wàllum lii di jaay tissu ak lii di wàllum mercerie ñu teewlu nag délégué bu marché Dior ak ay pompier ak ki nga xamante ni moom mooy sous-préfet bu Dakar Plateau. 6 heures et lañ ma woo que ni marché bi mi ngi lakk euh, bi ma jógee suma kër ci biir oto bi laa coordonné secours yi. Euh, woo euh, sapeur yi bon ki teel nañ ñëw. non mënuñu ko estimer mënuñu ko estimer parce que benn machine day jar deux cent cinquante mille bii quatre cent mille yi sept cent mille euh, li ñuy liggéey ay tissu la dañuy dem lebi ko muy xale yi ndaw yoo xam ni juddooguñu. bi ñun bi ñuy yegg si exactement cantine yu bëri moo doon lakk cantine yu bëri moo doon lakkandoo si biir donc vu ko aussi dañ leen tëjoon difficulté bi mooy déjà ubbi leen pour mën a accéder pour lakk fay ko correctement. boobu benn difficulté la beneen difficulté bi mooy bi ñu yegsi aussi li ñu gën a freiné aussi mooy euh, présence courant bi bi ñu yegsi boo fekk ne secteur bi coupé guñ ko donc yooyu yëpp lañ boole woon ak xataayu lieu yi waaw si ay oto yu mag mais yàlla def na ni ñun teel nañ ko circonscrire. li nag day wane encore suñu nekkin ci marché yi euh, problème yi nga xamante ne maanaam ñu koy jànkonteel ensuite ak euh, occupation anarchique bi ci espace public. ak surtout indiscipline bi nga xamante ni moo nekk ci conditions yu mel nii donc moo tax ñu lancé un appel pour ñi nga xamante ne d' abord mooy commerçant yi ñi fiy liggéey lii seen outil de travail la ñu gën a jekkal suñu nekkin mu doon nag ab ñi doon euh, àddu rek ci lakk-lakk bi nga xamante ni daal dina am foofu ca marché euh, Lat Dior ba alal ju bëri daal si ñàkk professeur jamono ji ndax jotul ñu daal di euh, moderniser lii di marché yi ngir su jëye amee ñii di waa sapeur pompier du mën a am jafe ngir accéder ci bërëb bi. professeur ma ni ndax jamono ji jotul ñu daal di moderniser lii di marché yi ngir bu jëye amee ñi di sapeur pompier yi du ñu a am jafe-jafe ngir accéder ci bërëb yi. waaw jaw dëgg la maa ngi excuse wu dëgg la euh, problème marché yi problème de structuration la mhm. mi ngi mel ne bu njëkk ba rek li fi quartier yi amoon bi bidonville daan lakk di fi kenn xamul structuration la ça fait partie de de l'aménagement aussi de l'espace urbain euh, sama xel ngi dem ci président Macky Sall am na teg na fi benn programme pour marché yi dénk ko Yaay Fatou Diagne ma koy nuyu maire j'espère que dañ koy tegaat dañ ko teg dabbaat mu nekk maire parce que pour le moment danga <laughs> naan bu ma ñëw ci locales <laughs> mais loolu la quoi parce que yaay fàttu lañ ko dénk donc elle m'expliquait que sa mission c'est de travailler pour ñu moderniser kii pour ñu moderniser. les marchés pour ñu moderniser les mar les marchés. parce que li li ko fay indi gis nañ ko parce que kuy dem marché di nga gis euh, le système des installations le système de l'électricité loolu yëpp parce que nit ñi dañuy jokkalante bu kii xëccee fale kii xëcc fale euh, te aujourd'hui daf dafay renvoyer à un autre problème. Euh, le problème de la de la main d'œuvre et de l'expertise xam nga Sénégal dafa bare woon expertise ay ay menuisier ay électricien euh, ay mason et cetera loolu yëpp ñu ngi koy gën di ko perdre léegi ay ñuy jëw di dafa ay bay jagal ñoo fi nekk nga xam dañuy dañuy essayer de bricoler c'est plus des bricoleurs lañ am que vraiment des gens yoo xam ne c'est des professionnels en même temps aussi nit ñi dañuy bëgg di xëcc courant bi te duñu jaar si norme yi war a am donc yooyu yëpp dañ ko war a xool mais je pense que programme boobu ñu taxaw lañ war gaawantu teg ko nga xam ne ñu dugg si marché yoo xam ne dafay am dans tout parce que c'est honte quand même que Sénégal at bu nekk surtout Kaolack boobu li fi lakk si marché dafa bëri euh, amoon na benn bis tamit euh, l'environnement du marché est-ce que euh, ñu ngi koy xool parce que lu mu tuddee sax asamaan asamaan bi daf ñuy wax ni parfois nee na boroom xel yi ñu sutante yi parfois aussi dañuy jouer un rôle ci loolu c'est-à-dire y a peut travail à faire pour comprendre réellement lan moo xew ba tax marché yooyu di di lakk mais li wor ba wóor moo di y a problème d'aménagement de de l'espace et j'espère que programme bi yaay faat bi ko dénk bu ci xaree tànku tuggeem xëy na bientôt ce sera un vieux souvenir pour sénégalais yëpp merci beaucoup professeur honorable branchement euh, clandestin ak occupation anarchique euh, daal di na bokk rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sapeur pompier ak sous préfet daal di joytu euh, foofu ca marché Lat Dior ba waral alal ju bëri daal di naax saay. waaw ñu ngi masawu ñi nga xam ne ñoom ñoo am loraange. si si lakk boobu. parce que ñëpp xam nañ ne investissement wu ay ati ati at la. marché boobu marché boo xam ne la expertise wu suñu ay tailleur yi. ak suñu artisan yi foofu nga ko doon gisee nga koy nattee man dem naa di tukki plusieurs fois bitim réew marché boobu lay dem pour jënd ay saak ak ay ay objets yoo xam ne c'est des objets de l'artisanat du euh, bu bu bu donc c'est une grosse partie man li ma xalaat mooy vraiment insécurité yi ci marché yi c'est généraliser marché boo dem nos marchés sont devenus insécures insalubres te loolu problème bu mag a mag a mag a mag la c'est généralisé Fatou nee na am na projet buñ ci def yaakaar nañ ne comme jigéen lañ ko dénk ah dina ci def leneen mais c'est surtout les collectivités locales qui doivent gérer cette ce problème de marché là parce que ñoom ñooy jël taxes yi nga xam ne ñoo ne ci marché yi marché yi ñooy ñooy duufal keesu euh, euh, euh, municipalité yi li nga xam ne mooy moom dafa mel ni nga yor sa napp sa nag nga di ko ratt subaa ngoon guddeeg bëccëg te doo ko dundal doo ko dundal doo ko toppatoo mais c'est pas possible mais bu yàggee doo doo looy ratati nag ba sax day de te loolu mooy mooy lii nii xew marché yi dañ nekk dans des situations catastrophiques et je pense que dafa aussi dañu war a jël yenn espace de production yi ñu bañ leen wëccati ci biir marché yi hmm. par exemple espace de production boobu nga am artisan ak ñeneen ñoo ci ne maa ngi ciy un appel am nañ ay village artisanal ak yooyu nañ leen délocaliser yóbbu leen foo xam ne dinañ leen gën a jox visibilité gën leen a jox maanaam en tout cas loolu ay programme la yoo xam ne mairie yëpp boo nekkee maire ah ñu ngi dinañ du nexe yàlla <laughs> mais ñu ngi leen di masaw di ñaax di ñaax ñi maire yi ñu taxaw ci voter def le maire léegi nga régler problème merci euh, euh, ñaari ponk yi la ñu jëloon tey jëm ci lii di li ci actualité ma bàyyi la ak lii ci dëkk bi ak investiture euh, mouvementé yi. merci Amadou xam naa ni moom campagne bi dina metti bu fekkee jigéen ñi moom dinañ mën a seqe moom il faut moo xam madame Diadio trouver solution <laughs> lii mënul continuer waaye nañu seetaan élément bi euh, bi ñu leen indil si reportage yu thème principal bi avant doog ñëw ci débat yi. ñi bennoo woon bokk yaakaar ku nekk a ngi yaakaar sa bopp ci jamono jooju am nañu yeeweeku ci yeewi askan wi mbaadu ñoom ñoo wàll waa wàllu Sénégal lu si mënti am rek jamono ji xiiroo ak ŋaayoo la ñu daal di nemmeeku si ñetti coalition yi nar a xëccoo jongante gox-goxaat yi njiitu réew mi ne woon waa Benno Bokk Yaakaar ñu xaar mu jël lii di décision tabb ñu war a jiite liste si mu mel ni nag loolee dafa daal di jaxase làng gi ndax ñi nekkoon ay maire te tabbuñ leen seen militant ñu ngi wane naqar ñu fas yéene nag demal seen bopp ngir laaj baatu askan wi ana fan la njiitu réew mi daal sukkandiku ngir def yenn tànneef yu jaaxal askan wi mbaadu sondage bi ñuy coow moo waral ba ñu daal di éliminer ñenn ñi. ca wàllu Sénégal Pape Diop bokk gis-gis am gis-gis boppam moo njëkk xoddeeku déposé caution donte ni nag li ni mel dafa doon ndogal boppam. ci gox yu bari parti bu ne dafay faral di bëgg jiite ca Yewwi Askan Wi Barthélemy Diaz ak Soham Wardini ñàkk déggoo moo waral ba taxawu Dakar daal di samp Barthélemy kii di Soham tamit fas yéene bokk ci jongante yi ndax dina nekk lu yomb diggante lieutenant Khalifa Ababacar Sall ki ko wutu fii si Dakar nag njiitu réew mi daal di tabb Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu jiite list Benno Bokk Yaakaar mu mel ni nag ku tas yaakaar ñi àndoon ak Amadou Ba mi soobu woon ci xeex mi donte ni nag daal dina jiite Benno Bokk Yaakaar ci niveau national fële ca Ziguinchor kii di Abdoulaye Balde jàpp ni moom njiitu réew mi da koo war ginnaaw tànn kii di Benoît Sambou yaakaar di woy di tas ci bennoo si ñenn ñi am ñu yeeweeku ci yeewi askan wi xanaa du wàllu Sénégal dong moo leen soxal li ci kanam réewul gët. non Amadou nag laal na laal na point sensible yëpp vraiment li am ci coalition yi doy na moo tax politiciens yi toujours ñu leen di yàq euh, lu mel ni xeme mais damay tàmbaleeg DG euh, Cheikh Bakhoum félicitations si tab bi ñu la taat en tant que tête de liste Benno Bokk Yaakaar à Grand Yoff mais euh, naka nga gisee investiture yi au niveau de la majorité d'ailleurs ñàkk ngeen ñu bëri ñoo xam ni kat dañoo gedd demal seen bopp wala en tout cas génn si majorité bi xam nga l'exemple de Abdoulaye Baldé à Ziguinchor wane na ko léegi est-ce que finalement investiture yi nekkul un choc boo xam ni après élection yi mën na affaiblir Benno Bokk Yaakaar. jërëjëf euh, bu baax. ñu lay fay nuyu aussi euh, ñi ma fi fekk ci plateau bi euh, l'honorable euh, Tine donc ñu ngi koy nuyu di ko ziare parce que effectivement on était ensemble à la commission des données personnelles pendant plusieurs années mu def également liggéey bu bu mucc ayib di ko ñaanal yàlla aussi par rapport à cette candidature au niveau de de Thiès di nuyu également madame Sow di nuyu aussi Babacar euh, par rapport aux investitures mm je mhm. pense que nekk na loo xamante ne euh, toutes les coalitions effectivement am na ay soubresaut am na ay difficultés pour choisir d'abord ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite ñoom ñooy jiite liste yi mhm. euh, lu ko waral nag man je pense mon analyse personnelle c'est que d'abord mode de scrutin de dafa changer ça mhm. c'est c'est le premier c'est la première chose parce que avant c'était des listes donc nit ñi mënoon nañ euh, trouver un consensus pour pour faire la liste et après derrière euh, désigner le, le candidat euh, qui va être euh, qui va être maire mais cette fois-ci les choses se font à priori voilà donc on désigne le maire a priori donc du coup euh, c'est les enjeux sont un peu plus importants mmh. et donc coalition yëpp gis nañu ne que discussion yi xawoon na xawoon na métti Euh, mais à notre niveau, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense que le président Macky Sall a donné euh, les orientations claires aux différentes bases, aux différentes, différents quartiers généraux, généraux yi nga xamante ne ñoo constitué sunu sunu coalition pour que ñu prône le consensus